asalaamaaleykum mbokku téléspectateur télévision Futur Média ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq waaye itam di leen bal ak di leen dalal jàmm nag ci seen émission bi di wareef ñuy ànd ak yéen altine talaata àllarba ba ba alxames si kàttanu suñu borom bi may am mbégte nag fa tubaakàlla macha allah di feggoo ak sama jarbaatu bopp ma Mami Diop maa ngi lay nuyu di la ziyaar fatubaakàlla macha allah di la jox sa wàccuwaay di nuyu sa bépp soppe bisimila ñu ne ma këf la dem ci ndoy baan ñu ne ma këf dem ci ndoy xam nga man ci yow laay bëgg tàmbale waaye fu mu nekk nii su ma këfee ci yow la temps ñu defal sa micro sargal ki nga xamante ne nekk moo di inspecteur ndoy baan xam nga moom Fatuma Kalla macha allah ay enquête am wër na àddina euh, moo tax fu mu ne damay dem ba Pire Sañaxo nuyu ay mbokkam Fatuma Kalla macha allah waaye tamit di ko joxaat wàcc waayam ci barke weeru gàmm gi Fatuma la macha allah ndoy baan maa ngi leen nuyu inspecteur enquêteur. chercheur fatubakalla macha allah yooyu yëpp euh, euh, nga bëgg nga bëgg ma ñambaas ci FBI ak Mossad ah, ak CIA ba pare nag nee ma def ci RG yëf bi diis na ci man bisimilah bisimilah tubaakala macha allah ñuy santa yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam am mbégte nag fa tubaakalla macha allah comme ni ma leen ko waxee am fi gat gan goo xam ne mët na gan fa tubaakalla macha allah waaye du gan ci kër gi ndax fii la bokk Cheikh bu maa ngi lay nuyu di la ziar di la sargal di la jox sa wàcc waaye fa tubaakalla macha allah di la ñaan nga nuyu askan wi bisimilah. rahmaani rahim sayfuna alhamdulillahi rabbil alamin munawwir al absar al arifina bi nuuril marifati wal yaqin wa radiyallahu an cheikhina wa imamina wa wasilatina ila rabbina cheikh bi mouhamad ibni cheikh sidi mouhamad ibni cheikh sidi bekaay al kunti soxna Degene ñu ngi lay fay fa tabarakallahu di nuyu soxna mami di nuyu Serigne Ndoye Bane di nuyu waa TFM yëpp fa tabarakallahu dale ci kilifa gi ak mboolem personnel bi di nuyu mbooleem euh, téléspectateurs yi ñuy seetaan partout dans le monde di leen ziyaara di àndandoo wax dëgg yàlla ubbeekoo sunu nuyoo sant yàlla ak julli ci yonneen sallallahu alayhi wa sallam gërëm way jur yi di ñaan yàlla na leen yàlla gërëm ñaanal sunu wasila Cheikh Abou Mouhammad nuyu nag sunu xalifa di cheikh Seydil Hadji Mamoud Hadj Mouhamed wuldu cheikh Abou Mouhamed wuldu cheikh Al Bouna Amami xalifatul am li tariqati al qadriya moom njabootu kunte yëpp di leen ñaanal lool ak yàgg fi te wér ak mbooleem xalif généraux yi di nuyu mbokk jullit yëpp loolooy sunu nuyoo ba ca kanam incha allah cheikh bi kontaan nañu balaa ñuy dem fenn dañuy santaat yàlla julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ànd rek fa tabaarkalla macha allah ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziyaarat kilifa diine yi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 dina yëkkati baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun liñ ci namm rek mooy jaale képp koo xam ne jamono jii ñu toog di waxtaan mel ni fekkee nañu mel ni tal nañu yéen a ngi ci tiis nekk ci naqar waaye nangu dogalu suñu borom bi ndax àddina du kër demal maa ngi ñëw rek la fatuwakalla macha allah moom mi nag xam nga dafa suñu ay partenaire yoo xamante ne ñooy ànd ak ñun bokk na ci coca cola mi nga xam ne fatuwakalla macha allah moom la ñuy àndal saa su nekk di ñu wéttali ci biir wareef xam nga ni coca cola coca cola classique excellent goût rafraîchissant nee naa leen bépp espace familial bu ñu am coca moo ñuy wéttali moo tax muy wéttal ci kër gi de du wéttal fu ne waaye li ci gën a am solo mooy coca cola dafa indi coca cola zéro bi nga xamante xamante ne que amul sucre amul calorie loolu nag mu nekk lu ñu itteel ci réew mi jërëjëf kon euh, mbokku téléspectateurs yi nuy nuyu waa Kër Aram jàppale fatubakàlla macha allah ak Zeyna mi nekk ci foire bi di def liggéey bu am solo fatubakàlla macha allah waaye wax naa leen jamono ju nekk ak la cay xew jamono ji fatubakàlla macha allah ñu ngi waajal gàmmu defe naa ni tey nag tey dama am exclusivité ndax Cheikh bu ñëpp dañ ko daan dégg ci wëy yi waaye tey dafa fas yéene waxtaan ci sangu-sang yi mu di Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam kon Cheikh bu bisimilah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من لا تتناهى مفاقره ومزاياه الذي إذا تكلم رؤي كالنور يحرج من بين ثناياه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما soxna Degene ñu ngi ci weer wi gën ci weer yi. wallaahi wallaahi. weer wi ñëw yóbbaale at mi. semaine am gën ci semaine yi bis ba nga xamante ni moom la ñuy teeru ki tax lépp am ñëw gën ci bis yëpp ndax kooku mooy sangu-sangu yi sallallahu alayhi mm-hmm. na wax ba yàgg mu ni man yàlla laa amal affaire yéen ñi ci des man ngeen amal affaire mm-hmm. ana min allahi wal muminuuna min ni sallallahu yàlla sàkk boppam mm-hmm. kenn xamul fu nekkam nga ne mu toog ab diir nekk kënz nekk ab denc mm-hmm. ba mu neex ko mu bëgg ku ko xam bi mu bëggee ku ko xam ci la sàkk ci leeram ku ñuy wax sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu ko jiitu nag ruu yëpp a maase mm-hmm. ajaa déggeen yëgal ni man ak yow ak mami ak mm-hmm. ndoy baan ñoo maase ca démb waaye ruu ba leen yàlla sàkkee daf leen a jóor ci benn place bi mu leen sàkkee ñu maase nag ruwu yonent be leen mag sallallahu alayhi mu joor leen ci benn place defar lu mel ni écran géant wala télévision mhm. def ca leeru sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ruu ya toog di seetaan di ko gis muy jaabante ñu koy xool di ko xool ba yàgg ñu xemmem leer ga daal ni rabbana man xasiyana nuurahu gileeg leer gan leer la mhm. yàlla di leen tontu naa leen haza mu muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ngeen ko gëmee mhm. ma fal ko fal leen bu ngeen ko weddee ma fal ko raaf leen mhm. yëgal ni yàlla su fekkee dafa bind ngay weddi mhm. daf lay bàyyi benn yoon ñaareel ba mu bàyyi la ñetteel ba daf lay effacé bind <laughs> su boobaa dootoo fa nekk sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu sàkk maam aadama donte aadama di maamam lii da di zahir rek lii di baatin ñu sàkk maam aadama daat ni malaaka yi nañu ko sujjootal ñëpp dégg ndigal iblis iñaan jàpp ko mhm. mu daal di bañ mhm. moo tax benn adversaire la am mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa moom iblis mhm. bi mu amee aadama nekk na ca faaram bu càmm ñu génne ca maam Hawa mu tëb wuti ko ñu baare ko ni ko dañ koy can mu ni moo lu may cane ñu ni ko jullil ci sangu-sang yi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu def ko rek mu dagan ko aadama nekk ak Hawa ay seex la ñu daan jur waaye bi nu agsee ci maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy Chiisa mhm. foofu benn la doon mhm. baayam ya ak yaayam ya amul génn góor gu ci mës a moy mhm. amul jenn jigéen ju ci mës a sàggan moo tax nuurun tanaqala warrahmaanu xaafizuhu min saalibi taahiri fi taahiri ruxumi moom rek nga mën a jël nan ko da ngaa baax sa yaay dafa baax sa maam dafa baax doo dañ ci lim ku baax ba ca maam aadama muy abul bachar mm-hmm. moo tax tan tànk bu tàqul ban amul bu ñu raxasa fi am budul mm-hmm. bu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñu nekk ca nekk ca nekk ca leer gay toxu di toxu ci siisa di ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ci abdullahi mi nga xamante ni ci gàttal moo jur sayiduna muhammad bi leer gi agsee ci moom rek jigéen dafa xàmmee leer mm. daan nañ daw di ko kar nan ko abdallah waaw kay ñëw fexe ñu ànd ak yow mhm. waaye ku ko wax rek mu ni sa nekk ak yow ci safaan day ma dee wuute ko moo ma ko gënal yàlla waye wayam wa amma alxaraamu fal mamaatu duunahu fal xillu la xilla fa astabinahu mhm. ba yàlla dogal mu mu jël yaay amina sunu borom nag bëggul kenn wax ni ma participer ci dund yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa kenn wax ni ma participer ci dund yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam way juróom wu góor bi ko yaayam dencee rek uh, wan na lor mhm. tabarakallahu moom ci la jiitu mhm. moom abdallah mhm. six ans yonent ànd ak yaayam tukki ca retour ba ñu ñëw ci benn bërëb bu ñuy wax ëbwa yaay ja feebar dab ko mu toog yonnent bi ngegenaay ci kaw kaw yaayam mu daal di koy xool ni ko yaa muhammad kun rajulan ay sama doom nekkal góor xam na ni góor la waaye coono ya muy war a jànkonteel moo koy wax yaayam génn àddina ci circonstance boobu mu def ak maamam deux ans Abdul Muttalib mhm. muy huit Abdul Muttalib génn àddina ku mu dese baayam bu ñuy wax Abu Talib te kat démb mhm. moo tax dañu wax bu teraanga yokkoo rek noonu yokku gane àddina ga bul fàtte baayam bu ñuy wax Abu Lahab moom mi ko gën a bañ mhm. keroog bi yonent bi juddoo nag da caa kontaan jaamam bu ñuy wax suway ba moo ko fekk mu toog ca mag ña mhm. mu ñëw daal ni ko amina am na doom mu ni bërit ni ko amina man mu ni ko mi abdallah bàyyi woon mu ni ko mhm. lu mu am mu ni ko góor mu kontaan ba ni suway ba goreel naa la mhm. ngir xibaar bu neex bii nga ma wax waaye xoolal ñaari différence yi sallallahu alayhi wa sallam nekk foofa ba bàyyam ya di ko tette di ko di ko tette yar ko Abu taalib sonn ca moom lool. Mhm. mu dem nag ba am âge yu mhm. diggante boobu yëpp al amin la ñu ko tuddee. mooy sallallahu alayhi mooy ku ki mhm. góor goo xamante ni du sennal sekkere. te du yàq ndénkaane. xanaa ñu yëkkati foofu. Muhammadu rasulullah. mën ngeen ko bokk Cheikh. Ahmad man hamida fi nnaas wa man yuhmad alladi urifa ismuhu wa fi أقربا صلى الله عليه وسلم وفي زبور فارخا وعند الله شيخ من بيكتي واحد دنكوي بغ ويا صلى الله عليه وسلم ومحمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد ميماي وي مامي شيخ محمد نينا شيخ سيدي المختار نينا اللهم صل على سيدنا محمد وانشر نوره صلى الله عليه وسلم وفي اللحم وفي الغم وفي العين وفي الحلب وفي الجنان صلى الله عليه وسلم ruube leen ko ruube leen ko dañuy daw nga tàmbali nu sallallahu alayhi wa sallam cheikh bi ayca ayca ayca bëgguma dara lu sedd subhanallah walhamdulillah waaw na jug dañuy doog a tàmbali la ilaha illallah subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa Allah بسم الله سيفنا ياسين صحفنا فسيكفيكم الله وهو السميع العليم سفينتنا كاف هاء ياء عين صاد كهفنا حميم عين سين خاف قسننا وخندقنا نون والقلم وما يشترون مددنا ومادتنا ومدينتنا خف القرآن المجيد وقايتنا لا إله إلا الله اللهم صل على من لا تتنا مفاقيره wa mazayaahu alladi ida takallama ruya ka nuuri yaxruju min bayni sanayaahu sayduna muhammad ay soppe boobee borom weer wee gor ñi yaa leen gën di gor sayduna muhammad géer ñi yaa leen gën di géer su ma yaboo naan génn gér rek am ta mooy sayduna muhammad gér ñaa nga madina ajaa déggen ku nay tëriir di wax ni gàmmu bi daala <laughs> bul gëm waxam ne ko seytaane nax na la xaalal imaamu nawawi te nee na gàmmuk rasul su dee bi daa rafet na kon abu sayid burub julit bu baax ba woon xanaa xamoo gàmmam gu rëy gu siiw ga woon juróomi junni xar la ren di sarxe ko bisub keroog abu sayid kenn gënu ko teg na ca ren di fukki junni ci ganaar sarxe keroog fanweeri junni ci dinaar fanweeri junni ci bagaan fees ak jinjeer la suukar jox fanweeri junni serviteur miskin ya ak yatiim ya naa ko jërëjëf aalim yi naa ko yàlla na yàlla fay sa jëf taxul mu fay na bi yoneen sayduna muhammad kenn du ko dab dugal ko nag rasulullahi julleeg tasab du xew maa ngi commencé ci rasul fit tasuleen budul woon ak sayduna muhammad julleeg tasab du xew alhamdulillahi alladi hadana bil mustafa qayribani adnaana njol màkka moo di ibnu abdullahi borom junjum ya cey rasulullahi abuhu bàyyi ba doomi doomi Abdul Muttalib noo ba raw na góor ñi kenn dootu ko dam wa ummuhu ndeyam ju baax ja Amina moo gën ci jéegi laaxiraak yu àddina Muhammadun moo gën ci doomi jéeg gi kon bintu wax bin um na lam bi jéeg gi kuy wutaraw ëllëg bisub yowmal qiyaam jullil ci moom mooy ram ku lu yëpp i jaam ku mel ni Seydina Muhammad amul du am billahi guddig juddoom ca néegi baytilaay makkata xayra kulla qaryatin tura li ajli zalika summiyat ummul qura juddoom ba asiyatun tantay muusa ndokkel si naag mariama yaayu isa laajal li ngeer ba yaayu abdourahman bi sub keroog bi laay gis na kéemaan malaaka yaa ngarang di sànni seeni saan jinne yëddu woon di dem ba asamaan de xupp xayra taal ba daal di fay diwaanu kisra taax mu rëy ma daal di joy wa shamsu jant baa ngi bég di kontaan ma ngay wëndeelu ay couleur badrul ilaahi ay biddéew rasul baaraam mu géey ba génne meew ku sopp sayduna muhammad ju doom ba doy na waar waaye nampal gaa gën a doy waar jigéeni kaw ga ñoo daan ñëw màkkaa daan capital ba mhm. di nampal liir ya fa juddoo ngir mën a am lu ñu dundalee seenu njaboot mhm. waaye ku ñëw ba jub yonneen da nga koy romb naan bii liir baayam dundul yaayam la desee ku ko nampal doo bari alal mhm. waaye dañoo xamul ni sayduna muhammad ku amul ndigal du ko laal ajaa déggeen gis nga ndigal moo gën dugal am li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo réeruwul yomb ba ma alimatun mu baax ma alimatu saadiya ñëw ànd ak ndigal mm-hmm. sayyiduna muhammad xool ko muuñ ko leer ya daal di jol xalima wuuf ko bég di génne ay rangooñ wapta sa mat ndeyam aminatun di muuñ xalima jox ko weenu ndi jooram sayyiduna muhammad namp ko mu jox ko weenu càmmoñam sayyiduna muhammad gantu ko rasula teel a jub bëggul cërub keneen moo tax ñu tuddee ko muhammadul lamin mm. jigéen ña bu ñu daan ñëw ñii seen i borom kër danoo amoon ay gëléem ca la ñu daan war mm. ñii seen borom kër danoo amoon ca lañ ay fas ca la ñu daan war Maria mbaam mu loof la amoon keroog ba mu nàmpalee Seydina Muhammad ba nuy ñibbi mbaamam ma moo gën a gaaw gëléem ya moo gën a gaaw fas ya jigéen ña fekk ko naan ko xalima nii nga gaawee tey meloo ni woon xalima wax nu lii lu tax mu dem ba leen di tontu mbaam ma ni ko noppil man mbaam mi maa lay tontul ci barke Seydina Muhammad mbaam maa taxaw naan laa ilaha illa laahu mooy li muhammadun rasulullahi moo ma war sallallahu alayhi wa sallam yaa afdal annaas fi zaati wa fi shiyami fi tasulim ci borom bari sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam jol makka moo toj badar toj na xaybar sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ndeysaan alhamdulillahi buuru buuru yaay ci dogal ndeysaan mhm. jol màkka doon sangu nit ak bépp càkkeef sallallahu alayhi wa sallam nag képp kuy càkkeef dangaa war a beeg ndax sang bi waral sang am doy na kawteef moom rek la moom ñàkk jom lool seen xol di bax baraw fuur ñu jóg taxaw teem naan muxtaar du tànneef mooy ñu koy jéem a caricaturer nañ leen bàyyi xel ci seen xeex mm. ndax xeex bu sallallahu alayhi wa sallam tubaab yi ak yahuud yi duñu dañ mukk di ŋàññi lislaam feebar bu dul wér laa yee passé rawoon fuuf bul fàtte seen caricature yéen njëkk a def ca at yee ka jiite woon mbir ma mu jëm doy na kaawte Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam deewam bu ñaaw nga mu dee te dee ci biir safara ëllëg su dekkee demaat naar moo di raw fuuf tax yaa ngi daanu fa ñoom ñuy suuf di yëngu nuy di ñi ami volcan di ñëw moo di fa tabaakallah macha allah ni leen ko diggee woon rek waajal gàmmu cheikh bu fa tubaakalla macha allah dina dem ak ñun dañoo xuus ak ñun waaye mami fa la macha allah xol yi yëngu na xam naa dama lay jox fa tubaakalla macha allah xanaa ci wàccaayu màggal gi waaye tamit ñuy julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bisimilah dëgg la. ndeysaan ndeysaan amin ndeysaan waaye xam nga maam Cheikh bu mu may wasilaam damaa am ci moom ñaari cër. ndax maa ngi moom dañoo bokk gàncax gi moom bokk rëy de. delluwaat nag bokkaat soxna Ami Fatou Seye. ndeysaan mi nga xamante ne moo ko yor. ndeysaan sama yaay. ndeysaan ci jaareewaat jaareewaat sax di ko jaaree lu bare bari moom soxna ma Fatou Fatou Mane Mbow. ndeysaan suñu yaay jooju fu jógee muy soxna Ami Fatou ma. macha allah jaareewaat waa dara ko posé. macha allah dañu ko Cheikh Mourou Moustapha dafa nekk moom seen. ok ndeysaan ñooñu sama yaay lañu. ok fa tabaarakalla dëgg la ndeysaan waaye nag bu suñuy xol sedd sedd sedd nañ ci jëf ngir mën ci am mhm. ndax dégg nga li mu wax ci bi nga jëkk a gàmmu mhm. la mu rey taxul sax mu jot sang ba mhm. kon ñun nañu gën a delluwaat fii delluwaat suñuy kóllëre rek boobu dafa am kóllëre bu ngeen seq kóllëre nag lu leen loolu ñu bëgg ko te ngay dem ci képp yaa ngi koy sikkal ak ngaañ ñun ñu bala ñu bañ a sa dara bañ a bëgg sa dara waaye nag bis bii nañ ci taxawaat taxawaat ñun jigéen ñi nee naa la bu ñu fa yeggee nañu xam nañu xam la ñuy yóbbu nañu nañuy soloo waaye daal yoor yooru gàmm jot na nga këppoo sab kenkaay yére sol sab yére génn naan maa ngay snapchat ak maa ngay leneen yaakaar naa mën na ñàkk nañu jël kurus yi di sant sang ba di sikkar di ziar tey dem di joxe ji addiyee tey ziar ñi nga xamante ne tey ñoo ko fi togal comme ni ko Ndoye Bane waxee waaye kuy dem daal na nga yóbbaale addiyee ndax dina tax mbir mi ne ndeysaan ndeysaan Ndoye Bane waaw euh, soo dégloo Cheikh Bou euh, da Euh, ñàkk xam suñu bopp gi te war nañoo xam suñu bopp mm-hmm. ndax dañoo fay am ay mag ñu baax mm-hmm. ñu bind ci ku tedd ki sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba li mu bind ci euh, ci ci yonente bi mm-hmm. kenn xamul nu mu toll wallaahi euh, maam Alaaji Malick noonu xalif général day Njaasaan suñu maam Kunta noonu maam Baye Niass noonu donc ñoo ñee tey ñoo koy topp topp ci ëttu diine yëpp voilà donc ñun am nañu wéeruwaay ñun am nañu fu ñu wéeru mais dafa am ñoo xam ni daf ku ci nekk nag na ak na ngay wéeroo ndaxte soo amee ñu baax ñu xam bu baax a baax kan mooy yonent bi ñu jàngal ñu ko nga nekk tout temps que ñu la koy jàngal nga koy dégg ñuy gàmm ñu koy dégg maanaam képp ku su fekkee daal bëgg ngaa baax mhm. bëgg tegu ci yoon mhm. dégg dégg a tegu tegu ci diine bindu mag ñi il faut ngay jaar ci mbind mag ñi mhm. tey déglu mag ñi ba pare gàmm yi ngay xam lu waral gàmm gi ak gàmm lan moo la ca war te soo dégloo genre yi dina la xamal lu waral gàmm gi ak lan moo la war ci gàmm gi ab jullit day xam dafa war a xam li waral gàmm gi ak lan moo la war bisub gàmm mm-hmm. Mm-hmm. loolu sax laa ko bëgg a laaj waaw wareef yan wareef moo la war moo la war war ci gàmm te mu doon loo xam ni mm-hmm. mag ñu baax ñi wax nañ ñu bind fi ba fi donc ku bëgg a réer yaa bëgg a réeral sa bopp taane gën waaye euh, Cheikh gis nga doy baan euh, ba tey mu ngi ci wàccaayu gàmm gi ñu gis ne tamit fa tabaakallah macha allah soo demee euh, ci Njaasaan ak fa tabaakallah macha allah ëtt yooyu ñoom tamit dañuy ngénte mhm. bëggoon naa ñu taxaw wax euh, leeral askan bi mhm. solos bés bi mhm. waaye tamit solos ngénte bi fatubaakàlla macha allah ñuy xuusandi rek macha allah kenn doyalu alhamdulilah euh, dugg nga mën naa ni ci beneen facette lu la gàmmu ñëpp ko bokk kenn ku mu doon da nga war a màggal juddug yonent bi sallallahu alayhi wa boo koy def fekk na yàlla jiitu la ca inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima mu ne naka yàlla ak yonnentam ñi ngi julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo yéen ñi gëm yàlla julli leen te sëlmal ci yonnent bi sallallahu alayhi wa sallam kon kay yàlla njëkk a gàmmu wallaay wallaay tuddee na ko nu bari ba ñu xam ni gàmmul yonent bi dafa war waaye bu bis bi ñun ñëpp ñooy ànd màggalandoo ko lu tax nag bu bu semaine ba dellusee njaasaan di ngénte a ah, doom nag ki ko jur yaa yi ngénte mhm. wala ko ko jur jox la ndigal mhm. bu ñu ko bëggee dégg sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa moom quraysh la hashimi la waaye nag kii di maamu kunta ndax kunta du sant mhm. danaa ci ñëw léegi li am li tax ñu am droit di ngénte uh, uqba ibnu naafi moom mooy seen maam uqba ibnu naafi moom ak omar ibnu as as ak Omar ibnu Usaasata al Adawi ñoo bokk benn yaay seen yaay mi ngi tudd Naabihatu bintu Harmala ndeysaan Cheikh bu Kunta moo sañ ci Njaasaan way juróom bi ko jur mu ngi tudd Cheikh bun ama Cheikh Sidi Cheikh Sidi Bekkaay ko jur ibnu Sidi Mouhamad Abdourahman Haj Aboubacar ibnu Cheikh Sidi Ahmadul Bekkaay mhm. ibnu Sidi Mamdil Kunti ibnu Ali ibnu Yahya ibnu Ousmane ibnu Yahsh ibnu Dawman ibnu Shakir bun Aqib ibnu Uqbatul Mustajab ndeysaan Uqba mi Naafi moo ko jur bun abdul qays abnu laqisi amri umaya zarba xaaris abnu fihir yonent bi abdallahi moo ko jur sallallahu alayhi wa sallam abdul mutalib hachim abdi manaaf xusay kilaab murata kaab luway xaalib fihir boo limee diggante uquba ak fihir juróom-ñaari maam la nga lim diggante yonent bi ak fihir fukki maam la kon uquba a foofu moo tax mu doon way juram ñu am droit bu ñëpp defee gàmm gi ba pare ñoom ñu ñëw di ngénte mhm. bi mu nekkee Qurayshit mu nekk Hashimi ndax mum na bintu Bazlul moom moo jur yaayam Cheikh Bun Ama te Cheikh Abdou Qadir Jeylaani mooy maamam umman wa aban mhm. lii moo leen ci dugal ñoom bu ñëpp defee gàmm ñu àndandoo di ngénte dañu nekk mbokk yonent Yàlla Muhammad ci Quraysh gi mu walbatiku daal di ñëw nekk seen maam mhm. kunta gii ngay dégg ñu naan kunta kunta yi mhm. arab baaxoowul di am sant mhm. seen maam ji ñuy wax Cheikh Sidi Ali moom moo am ku mu jël soxna su baax bu ñuy wax Mariam mint Amri Gilal mhm. am ca ku ñuy wax Sidi Mouhamad mu ah, soxna sa mu jël nag mi ngi tudd Ahwa bintu Mouhamad Alim ibnu kunta ibnu Zem maam ji daal di yar sët bi arab daan na wax maam baay léegi nag ñu naan Sidi Mouhamad wuldu kunta looloo tax ñuy indi kunta kunta yi moo tax borom Ndiassane bi mu ñëwee te nekk mbokkum yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ñëpp defee gàmm gi mu ànd kook ñoom ca bu dellu see nag ñoom ñu ñëw di ngénte macha allah rek moom mooy macha allah bi am na solo fa tabarakallah macha allah cheikh bu ba tey ñuy xuus ci sang-sang yi mu di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndoy baan ma ngi naan léegi mag ñu suñu tënkoo ci mhm. binduk mag yi ñu fi bàyyi rek mhm. defe naa ne ne dafay doy sëkk mhm. euh, pour que ñu xam Mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxin la nag ndax mhm. yonent bi alayhi salaatu wa salaam kenn mënu ko xam nga nekkoon ci ponk bu am solo mhm. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundinam maa ngi tolloon ci diggante ndooy li mu wax lu ama solo la mag ñi Sénégal ku leen ku xeeb li ñu am rek yow yàqu nga wallaay wallaay dañu wax ni benn mag nee na penku ñoo ñu gën mag ñu njëkk waaye ñun ñoo leen gën mag ñu mujj wax bu jar a dégg la mm-hmm. ñoo ñu gën mag ñu njëkk mm-hmm. waaye ñoo leen gën mag ñu mujj lu am solo wax ñoo xamante ni lu nu mm-hmm. am ñoom yonent la ko delloo sallallahu alayhi wa sallam te li muy foor foor moom sallallahu alayhi wa sallam roy ko moo ko ko gënal Hmm? wax naa ci benn way ni mhm. ki tax ba foo dem ñu jox la cër mhm. ba ku la séen naan waa jànga ne mhm. yombal la xaalis yëreeg jigéen ma ni lii ki ko mën ma nga ca yasriba waaye am na charte ku bëgg a mujjeeg teraanga ji maytul di moy del sellal bu baax saxol di muñ del bal bépp noon royal ma kee toog fa yasriba kuy tagg yonent bi waroo di mer waroo di rëy bul diis bul iñaan waroo di nay bul siis del joxe royal ma kee fa yasriba sallallahu alayhi wa maa ngi amoon ci bi suway bëtu ñëwee xoolal diggante boobu jàngale bi fa ne mhm. daat ni Abu Lahab mm. sa euh, rakk ja kam bàyyi woon am na doom mu ni ko kan mu ni ko Amina mhm. mu ni ko lu mu am mu ni ko góor mu kontaan ba ni goreel naa la mhm. waaye booba liir buy door a gane àddina la kenn xamul lu muy doon quarante ans après ka baaxoon weddi boppam daal di soxor ki ñaan nag fanqul muur yàlla ay joxe Muawiya ibn Abu Sufyan nee na mm. jàngoro ji gën a màndu nee mooy kiñaan mm. mu ni nee na foo fekk ku iñaan bu sàgganul mooy njëkk dee ka mu iñaane mm-hmm. ñoom ñaar nag ñëpp ñëpp dinañ gudd fan <laughs> loolu am na dañuy gudd fan yàlla di def muy gis ci ki mu iñaane lu mu koy tanee te du ca mën dara mm-hmm. Mm-hmm. foog mu gis oh, dalu zunubul xaasadu <laughs> foog mu dund yaxsulul xaasida xablal mahsud mu ni ki nga xamante ni moom dafa iñaan foo ko fekk rek moom jàngoro ju màndu la yor parce que mooy njëkk a dee ka mu iñaane 40 ans sallallahu alayhi wa sallam nekk biir màkka mhm. ñu tuddee ko al amin mhm. ku nu wóolu ki kuy mhm. dénk dara sax moom nga koy dénk moom la ñuy wax góor gu dul sennal sekkere te du yàq ndénkaan sallallahu alayhi wa sallam 40 ans après mu woo leen ca tund safa dem nga màkka safa ak marwa eh, tund safa la leen woo dajale leen bi muy laata woote nag mooy bi ñu ko wooyee ndax ca xuntuma la ko mbir mi feeñoo à bas âge rek la commencé di def wéetam yooyu Ah, alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza nujabaaw <laughs> day dem di wéetal yàlla mhm. di di wéet bëggul kenn ku ko déranger mhm. di tudd yàlla mu ni nag ñi nar a baax ñëpp mhm. ci seenu ndaw nga koy xam ndeysaan ñi nar a baax ñëpp ci seenu ndaw nga koy xam fa la nekkoon bi mu àggee rek ci âge ci gàttal fi may bëgg a yam ba jël sunu yaay Khadija muy une riche veuve ca jamono yooyu màkk mu nekk ki fa ëpp alal am personnalité mais xolal jàngale bu sew boobu Khadija na bi ma yonent biy jël màkk gi maa fi ëpp alal mhm. waaye tey bi mu ma jëlee maa fi gën a ndóol mhm. ñu ni ko lu tax mu ni sama alal yëpp jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam addi yonent bi sallallahu mu ko ko joxee ba noppi nag kam ko jox goree diwul mhm. sallallahu alayhi wa sallam di di xifeet xool ko ni ko wallaay wàcc nga waaye li ma bëgg ci alal ji rek mooy ndox mu may wettalikoo ci may dem ci xaaru xiira ak tàndar ma jooma walal ma koy dëgërali sama biir bu may jaamu yàlla li ci des delloo naa la xoola maandu bi moom sallallahu alayhi wa sa ñu nekk ca loola bi mu leen woowee nag bi mu leen di laata woo am na benn bàjjen bu ñuy wax safiyatu bint mm. abdul mutalib mm-hmm. kooku moom mooy yaayu zubayr ibnul awaam mm-hmm. uqba mii ma lay wax muy maamu kunte mm-hmm. bi mu ganee àddina safiyatu moo ko leewu ñëw ni yonent bi ñaanalal sa rakk mu ubbi gémmiñam loolu ñu tuddee tokkantal ci wolof mhm. daal di jël loram mu selloo def ko ci gémmiñam ni haadal mustajabu dahwa ila yawmal qiyaam kii la yàlla nangu ñaanam ba yawmal qiyaam sallallahu moo tax kunte kunte yi yàlla barkeel seen làmmiñ mhm. fa tabarakallahu ñu yëkkati macha allah balaa may dem pub rek waaw محمد الأمين يا رسول الله كما قال وقال لك مصطفى يا قومي يا قومي يا قومي ين سمي جاي نولن نوي نبي محمد سبحان الرحمن لا إله wawareef jaayu leen lu jiitu ñuy tabax sunu maam Mamadou di rasul di julli tay tasab ay leeram di baawaat lay lay bu ma gën ma gën ajaa dégin keroog ba Adama xoole arsh gis na ak leer ku jol ba tiim mu di laaj buur bi raxmaan laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah laa ilaaha illallaah ay waay rabbana ma haazihil anwaaru luy gileeg leer buur yàlla naa ko zaaka nuuri xayri adnaan laa ilaaha illallaah muhammadu يا رسول الله ذاك نبي كريم خير كل رسول لولاه ما كان كون منزلك وان لا اله الا الله waa wareef jaayu leen imaamul anbiyaa jiital gaa yi seen directeur yowmal qiyaamati moog yàlla di waxtaan ndeysaan seyduna muhammad guddeem gu rëy gi fi woon ba gaaya dee examen rasul la jël première wan leen fa kiimaan la ilaha illallah muhammadu rasulullah moo xare badar daal badar gu mag Babacar Sadiqu moo rangoon di garde tànk ba ëskay déglu leen loolo ustaas waaw keroog Badar Omar joxe ndigal naan dóoral ñu tuub mbaa ñu dee nun ga yi Mamadou nooy daan seede leen la la la ilaha illallah Muhammadu ya rasulullah ku magal magal la xale yi aw leen na riir Ousmane wuute na ajaban yàlla moo doyugu wa bintu rasul a tax Ousmane wuute woon loola la ilaha illallah Muhammadu laay laay la laa eh, ah, eh. ah. ma ni aliyun ibnu abi taalib gawar gi fi woon moo rey badar daal na seede leen loolo laay laay la laa muhammadur rasulullah ay jaayu leen zubayru kaalaw rango jaasi war naaru góor malaaka yay roy ca moom déglul ma yow lool ñu dem publicité ñu dem publicité sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ñuy sant yàlla bu baax a baax julliwaat ci sang sang yi mu di sey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di waajal gàmmu gi nee naa la ëttu diine yëpp suñu yéene moo ñu jaar fi mhm. fa la macha allah ndax mag ñu baax ñi fa tubaakalla macha allah li ñu liggéey mooy fondement li nga xam ne ne moo di Sénégal mhm. nañ ci bàyyi xel fa la macha allah li ñuy def rek mooy ànd ak suñuy sponsor ànd ak Coca Cola waaye tamit ànd ak si bopp la macha allah dem léegi dellu si waaye bu ñu fàtte ni la macha allah fësal mbaax tamit dem na ba tiwaawan la macha allah ñu jël fa rahmatullahi alayhi sëñ Mansour si fatubakalla macha allah jamono ji weer wii fatubakalla macha allah ci zaahir la woon kon nag suñu defee publicité dem fësal mbaax ci sëñ Mansour sukk nag nekk euh, euh, euh, sukk sukk bu baax a baax mm-hmm. tàllal suñu loxo di sàkku ñaan ci bépp kilifa diine mm-hmm. di leen ñaanal tamit ñu yàgg fi lool lool lool lool ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu dem dellu si léegi léegi jërë ngeen jëf xalifa tarixa tiijaan bu tiwaawoon sëriñ Mansour si mi gane àdduna ci atum 1925 ci dëkku maamam bii di tiwaawan nekkoon nit ku tabe ba yéem sax ku bokkul ci diine islaam bi toog naa man muy maye biyey màkk ba ni gees yem ci benn waay fekk moo fa indi waa ji moo ko conduire indi ko ci Tëngéej ci salon naan ki ngay bindal bindal diw day dem Màkka ren bindal ba ñett ñi ñëwoon ñaar ñooñu mu a bindel ma ñaar ñee ndax maa leen ko diggoon te dañuy dem kenn des ñëwul toog fa mu toog mu siggi rek nga dul dem yow Màkka mu ne ko papa man catholique laa mu ne ko eh man sama parce que fii ñëw man pour ñëpp laa am ma may la million boo dee dem Rome yaa xam boo dem Rome yaa xam loola moo jàpp waajo bu daa mujj dugg ci diine ji am jaago la mu tudde ko Serigne Babacar Sy. bari na ñoo xam ne macha allah Cheikh Mahamadou Mansour moo leen jox tabaxal ay kër jox leen bari ñoo xam ne moo leen yóbbu mag jox leen ay billet ñu dem mag bari na ñoo xam ne moo leen wutal liggéey bari na ñoo xam ne moo leen jëndal ay tool bari na yoo xam ne moo leen tabaxal ay jàkk bari na ñoo xam ne moo leen tabaxal ay daara. ak yeneen ak yeneen yu dul jeex. daanaka wax naa lu nit bëgg bari la dee ko may boo bëggee bari xaalis dee ko may boo bëggee bari yére dee ko may boo bëggee bari ñam dee ko may waaye lam ca def yëpp de mën na koo fekk fa mu tëdd ndax lu ne maye na ko ba nit ñi sax wax dëgg yàlla danga koy rusatee xool sax ndax foo ko seen poos bi lay njëkk loxo bi lay jëkk dugal ci poos bi loo ko naxee ci sëñ Babacar neex na ko di nga gis noo xam dañ koy wax sa du dëgg waaye day ree rek jox la lu la war a jox mu jox la ko léeg ma ànd fa kala mbay mu tooñ noo tooñu tooñ ah kala moom mu ngoog rek moom day daba mooy wax de waaye daba waxul man waaw <laughs> man si kalaay wax daal man amul lu may wax mun ma njub lang la rek seytaan <laughs> bokk dëkkandoo taalibe njaboot doonoon lu ko soxal lool ba tax góor gi liggéeyam yëpp doonoon tasaare xam-xam ci taalibe yi ak taxawu doomu aadama yi ci bépp fànn sëriñ Mansour moom kenn mun la wax ci moom lu dul yaa baax rek ndax fonk na ay jarbaatam fonk na ay jigéenam fonk na ay bokkam lu baax lu ne def na ko ci ñun def na ko ci taalibe yi jëndal nañu ay kër barkal yóbbu nañuy màkk Cheikh Mouhamadul Mansour Sy radiallahu taala borom daara ji daa nekkoon mbindeef la boo xam ne yàlla da ko indi fii ci àdduna ngir xettali ay jaam ndax bare na lu mu def ci wàllu dimbali bare na lu mu def ci wàllu dimbali ay jaam yi yëkkati société bi dimbali leen jàppale leen ci wàllu seen diini jàppale leen ci seen wàllu dund nit ku baaxoon la ku yaatu woon la koo xamante ni maanaam dundam yëpp njëriñ la daal buñ ko doon wax fii ba suba duñ fi jóge maanaam ku mënoon a servir doomu aadama yi la bëggoon njaboot la bëggul woon kenn mer sëñ Mansour daal moom daal yàlla moo moo ko moo ko fi wàcceeloon daal mu nekkoon nit koo xamante ni daal léppam soxla doomu aadama yi koo xamante ni bu xëyaan saalam suba ba ngoon ay cas social lay lijjanti dépense courant ndox waaye amee problème bala nga daan xalaat kenn dangay ngay ñëw ci moom te boo ñëwee lim ci mën dina ko faj ku amoon soxla ku di nga ko ñemee wax sëñ Mansour si ndax boo demee dina faju te du la du la gàcceel te du la gàntu te du la jéppi waaw moom Cheikh Sidi Mamadou Mansour si moom daa boole woon jàng ak jàngal ndax depuis 1945 moom la demoon quartier et te boo mu ngi fa sampoon daara ci biir quartier bi di jàngale kon noonu laa doon jàngale di jàngale ci dund seen Babacar miin nañu ci làmmiñam di wax ni damay doon tegle añ ndekki añ ak reer pendant 30 ans jëm 40 yoo xam ne suba bongoor moom mii bàyyam bu tedd ba di sëriñ Babacar Sy doon dàkkantalee borom daara ji doonoon ko am yitte ak pas-pas ci tarixa bi ba ba muy génn àdduna ci atum 2012. Mansour borom daara baat boobu baat bu siiw la boo xam ne ci làmmiñam laa ko nangoo ci jamono Sëñ Babacar Sy radiallahu taala an benn délégation bu jóge woon Côte d'Ivoire ñëwoon ci Sénégal di doon laaj ci Sëñ Babacar benn masala benn question ci seen wàllu diini ci lu aju ci wàllu dem màkk jamono yooyu dem màkk ci wàllu avion mu ngi soog a xew léegi bu ñu ñëwee Sëñ Babacar ànd ak délégation bi fekk Sëñ Mansour muy jàngale ci daara bi mu ñëw ba tiim ko fekk muy jàngale di wax loote mu nekk borom daara ji yaa ngi noonu mu nekk waaw pap mu nekk tontul ma ñooñu seen question bi ñuy laaj bu ngeen paree ngeen ñëw fekk ma ci kaw étage foofu la borom daara bi commencé. la jab da daf ko woy wenn woy ni ko bil ilmi wa taalimi fustum xayrakum waaw bil basli wal infaqi wal ihsaani juróomi muy juróomi tiitar bil wa taalimi wal wa taalimi fustum xayrakum bil basli wa bil basli wa infaqi wal ihsaani muy juróomi kaska ko soloon bil ilmi jàngoon na ba ku ñu tudd ni bare xam-xam bu ñu ko tuddee sëñ Mansoor day danaan dabuma ko waaw koo tudd di nga tudd sëñ Mansoor wala boo da ngay tudd sëñ Mansoor teg ko ak koo doon waaw muy xam-xam bil wa taalimi ak jàngale nun moonu jàngal jàngale gi mu daa jàngale fanweeri at ak juróom toog na ko dañuy boole añam ak ndékkeem bu xëyee huit lay dem ci daar ji ndékki du jot mu continuer jàngale fànn gu jeex ñu jeex ñeneen ñëw ba ñu julli tisbaar bu ñu jullee tisbaar ñu boole añ bi ak ndékki li wala añ bi ak reer bi tàngal ko jox ko bu muy fanweer juróom kon mooy taalim bi waaw wal infaaqi nun bi mu nun bi mu nuy jàngal bi mu nuy jàngal moom Cheikh mu Mamadou Mansour Sy bu ñuy jàngee ba ñu julli tisbaar bañ ni diggante tisbaar ak tàkkusaan mu war a njàng mi war a jeex day woo ko mel ni Ndiasse Guèye wala mu woo ko mel ni Moustapha Touré yëkkati lu mat cinq cent mille ni ko demal nga wecc weccikul ma ko lem par junni par ñaari junni par juróom-benni téeméer par ñeenti téeméer moo tax daaraam daa daa xumb moo tax wal infaax yi dépassé moo ci mënoon ku ne jàngal la ba jox la dépassé waaw. bu mu tëj tëj bu nu ñëwee mu ubbi ñu ay buntam. suñ ko jubee bëñam bii la ñuy njëkk a gis bi gën a neex mu am ci ñun yëg lool nag tabaar fakal ñu ngi koy ñaane yàlla daal yàlla yàlla yeesa yërmande moom ko fa fekk ak kum fa fekk baax na ci ay jarbaatam baax na ci ay jigéenam ku ne teral na la li mu def ci teraanga moom ku ko ñaanalul sax yàlla dina ko ko fay juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar yi borom daara ji def ci kaw suuf des di gindi abadan lii di tarixa tiijaan bi ci àdduna bi yépp daa mel ni yàlla da ko fi indi woon rek pour xettali doomi aadama ci wàllu social ci xeet yu bare bare bare bare nit ku baax la woon ku ñime woon njaboot koo xam ni xalifatu tous les domaines la ñu ko tudde woon maanaam xalifatu tous les domaines man ni ma ko dégg mooy do lu yàlla soxla lu soxla si doomu aadama rek yàlla tàggatal na ko Serigne Mansour si waaw luy soxla si doomu aadama rek lu mu doon rek boo ñu Serigne Mansour si mën na mën na mën na ko di des soudeur ak bu mu doon nag jërëjëf euh, mbokk téléspectateurs yi di leen sargalaat bu baax a baax ci barke weer wi fatubakàlla macha allah seen émission wareef di waajal gàmm gi waaye nag li ñu li ñu yor du ñu fi indi benn soxo soxo cheikh bu feebar bu metti dal na ma te sama docteur ba koy wéral sori na ma lool waaye jéege ma ndax ma ngay neelaw ca Yasriba xam nga lu ma dal di dox di miir te daanu woo sa xol bi fees dell ak mbëggeel ba sama bët yaa nga far lëndëm gisul lu dul kee fa Yasriba majnuunu Layla dofoon na bis ci bëgg Layla ba am ca tur maa ko gën a foorle tawóolu na man sama soppe nga yasriba ya sayidi ya rasulallah xusbi ya di jàppal sab loxo yonent bi dindil ci man lépp luy tilim am nga ko yaatooge yasriba bu mu yam ci man sama yaay sama baay bajjen yeeg ndijaay ak soxna yeeg doom yeeg soppe yi sayduna muhammad ñi ñëpp yaa moom na ñëpp baax sa barke yaa tooge yasriba yàlla bu ma ab noon mënal dara pexe jigéen it ma mucc ci ak góor ñi may làqatoo jigéen barke yaa tooge Muhammad yaram wi maa ngi lay ñaan na wér te fu dem rek am fandam te yéene ndam képp kuy jullit ngir roy yaa tooge yaa riba te sama baat bi na gën di neex mm. ma gën di fent ay way yu neex ba ku ko dégg sa xol di neex sa barke yaa tooge yaa riba ku nekk sa métier ba yàlla dee wàcce métier yi xale yi ñii di maçon ah. ñii menuisier ñii mécanicien ñii informaticien ñii politicien ñii ay musicien ñii ay comédien man def na ma may tagg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam def na ma may tagg rasulullah may na ma ndam moom sama soppe ngay jëf yëpp buñ daje yaakaaruma lu dul bëgg gi ma bëgg rasulullah man sama soppe nga yaa riba ma dama koy way bay tiitaru tagg yoneen jar naa tiitaru waaye fexeel rek ba bul ca bew royal make toog fayaz riva sayduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah maa la ko ñaan way wi ma lay way yàlla nang ci bég ba wan ma firndeem ci àddina yowmal qiyaamit nga jàlle ma ma mel ni xasaan ca yow sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam laa ilaaha illallaah waawala sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam cheikh bu defe naa ne mami euh, dama lay jox rek ba tey ñu wàccaay ci mhm. wàccaayu gàmmu gi dëgg la ci jikko yi mhm. balaa ñuy dellu si dëgg la parce que tamit jikko mooy wàcc mhm. te ñu dem ba nga xamante ne Sénégal ñu ni neen la ku ci nekk war nga dugg sa ruq mën a kan xam ne soo yëkkatee sa tànk ne damay gàmmu ji rek lan mooy saasu gàmmu lan mooy ban yan jikko nga war a àndal fatubaakalla macha allah ndax tamit da ngay fekki Euh, fa ngay fa ngay dem ñooñu defaru mhm. fas ak accueillir gan yi mhm. waaye yow mi nga xamante ne nekk jóge nga Dakar ak foo mën a gàmbu ci lan yan lan nga war a jikkoo ba soo demee duñu ne cam mhm. ndax tamit bës bi defe naa ni solo su bés bi solo su weer wi la macha allah war na la doy sëkk-sëkk nga gëstu lu mu rawatina dem fa di fa yóbbu yoo xamante ne nekk ay safaan la ak di fa joxe ay rendez-vous dëgg la yaay dëgg xam nga suñu mag ñi li tax ñu am li ñu am mooy dañoo foowewul woon seenu ndaw te ñun Sénégal nag li ñu sonal ñun gone yi fi ñu toll mooy dañuy fowee suñu ndaw mhm. te ku dukk dukki sag ndaw faaw nga yomb yombi sag mag yaa diggan mhm. kon nañu xam ne du nag doonee doone damay toog ba màgget mhm. soogay di jaamu yàlla wala damay toog ba màgget soogay di def lu baax déedéet euh, xam nga ñun lan moo ñu sonal mooy li benn euh, oustaz xaw ma benn imam musoon wax ci benn reportage bu Kumba Kuli defoon mooy jigéenu Sénégal lu jóg ñoo ci man lu jóg rek dee gàmmu ga ñoo ci mën bu dee màggal ñoo ci mën bu dee grand théâtre ñoo ci mën mais li leen dooy waxoon démb kii gàmmu ak kii raas démb dañu bokkul yaa dégg rendez-vous nañu taxaw tuuti ci rendez yi am na ci xale jigéen yoo xamante ne bu ñu xasee ba dugg ak gone yu góor yi mm. talu ñoo toog sax ca kër ga ñu dal lenn lañ fa def kay mm-hmm. mooy genre auberge lañ koy def dugg sangu sol yére génn dem mm-hmm. moo leen fa indi ña ca rendez ya ña nga ca mm-hmm. kuñ war a mën a raasaatu ji ña ngay dërëm bu ñu def ci seenu pochette ñenn ñaa ngi yor seen loxo di sàcc alal ju ñu moomul te man damaa yaakaar ne taat diggéen fa nga war a summee koo jey say bàkkaar boo fa yenoo bàkkaar man ba nga set ndax yow dem ba bisub gàmmu amoo leen looy def lu sab faj ay itteem yu mu ca mën di faj ndax ki mm. liggéey alalam mm-hmm. mënoo ko ko gën a bëgg yow mm-hmm. nga ñëw ne ko raas jël mm-hmm. li ma la fi waxoon ci màggal gi indi nga ñetti problème parce que yow indil nga sa bopp gàcce bu fekkee ne nit nga mhm. boo xoolee sa bopp war nga ruus mhm. mais indil nga waa kër gi ndaw si dal wala nit ki fi mu dal mhm. indil nga leen gàcce parce que kenn bëggul ko dal sa kër di réer le ndax jiiñante baa tax indil nga gàcce ndaw si ki nga xam ne moo réer le ndax alal dafa sax ci xol borom du ko mën a bañ a jàmbata su ko jàmbatee ñaaw ci ndax Sénégal dañ naan da ngaa ŋàppaaral kon yow indil nga nit ñi ñetti problème yoo xamante ne boo téye woon sab loxo mën naa am du am waaye taa diggéen gone yu góor yi mm. nañu sol col gu jot a takk mm. seen tuba yii ceeg mm-hmm. daawun daal nan ko bàyyee prisonnier américain mm-hmm. rawatina ci nag booy dem ci lu toll ne gàmm mm-hmm. wala leneen beneen bi ci topp mooy gis nga taadegen nañu ñi ñuy dal nañ leen di yërëm parce que dalal nit dafa metti rawatina ci fii jamono ji toll yaakaar naa mm. ne kilo ceeb bi mu yor munu cee reggal ñetti doomam yi ci këram nga bëgg a ñëw ne gàkk ci kawam toog fa 15 jours wala nga toog fa une semaine mel ni ko amul foo jëm ñuy wax suba goo dëkk ba ba mu daj mm. nga ñëwaat wàccaat këram mm. mu war a wàcc lalam jox la ngay tëdd mm. muy tëdd ci suuf mm. wala muy xat-xatal ak njabootam mm. buy togg xëy na li nga wax fii barki dem mm. su doon togg su mbaxalam te yow boo teewee mënatu koo togg da koy changé donte nag sax nit ñi moom gàmm moog màggal leneen a ci yem lay teral ba ngay daw mm-hmm. waaye daal nañu xam ne daal ku sa yàppum bopp réer mm-hmm. da ngay làmb sa kaang mm-hmm. bu fa dem naan du ma naan café du ma lekk cere du ma lekk ceebu keccax du ma lekk lii du ma lekk laa di añee sa kër soom bi di ceebu jàmbur doy na waa mooy amu fit nduy mu am lenn loo xam ne bëggoon naa ñu wax ci balaa ñuy dellu si ci cheikh bu dafa am nag lenn loo xamante ne maanaam ay kilifa wala bokk ñu leen di oowee kilifa wala boog lu mu ci mën a doon rek ñoo xam ne occasion yi waaw occasion yi la ñuy ut mhm. nga xam ne di joxante rendez bu jeeg ji mhm. ak xale yi nga gis ci ñenn ñoo xamante ne ñu ngi ak seen cheveux naturel nekk ak seen bagage xalaat ni fa ñuy dali kooku tamit euh, daf leen di laafum ganaar wala pooj mhm. ñuy jaagar jaagari mhm. am na ci ñenn ñoo xamante ne guddik Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mhm. ci la ñu taamu pour nag di nekk ci néeg yeeg di ruube seex dëkk baa ngi toj yaa ngi dégg baax li ma la ñëwal dalal naa la nga ñëw fuuj fuuc ci yaa ngi dégg daal di toog ah, ah, ah, daal yi yi ci xew daal bëri rendez-vous yi daal neexut a wax waaye nañ ko wax ndax mu ngi toj réew réew mi ñu gën a ñemee yàlla Sénégal gii la Sénégal dañoo ñemee yàlla. Mm-hmm. am fit mënul weesu. nga ni da ngay gàmmu ji. dem ba Tiwaawan. wala dem ba Njaasaan wala nga dem ba Medina Baay. di fa mooy yàlla. wallaay wallaay loolu ñeme yàlla. wallaay munu ko munu ko munu koo weesu. ñeme yàlla. te gis nga dafa am ñoo xam ne gàmmoo leen tax a jóg. Mm-hmm. di leen gàmmu ci di mm-hmm. leen dem ci sëriñ ba. di leen dem ci jumaa ja di leen dem ca tànt ba di leen def la yenente bi santaane. ci gàmm am na ñoo xam ne dañuy taxawaalu ji dafa bari ñu ci bari dañuy taxawaalu ji ñi ngi may seetaan am na ñoo xam ne fi mu nii takk nañ seen bagage mhm. pour dem Tiwaawan taxawaalu ji mhm. am na ñoo xam ne dañoo war a dem Njaasaan taxawaalu ji mhm. am ñu war a dem Tuubaa taxawaalu am ñu war a dem Kaolack taxawaalu am na ñuy dem pour gàmmu ji ñoon di taxawaalu ji nag ci ay kër lañuy ñuy dal am na ci ñoo xam ne ay ay mbasin yu baax la ñuy sol oto yor seen oto yu baax ànd ak seen jéeg yi baax ca kaw tàngaay leen nekk ca mm. kaw terrasse ya la ñu ne mm. di def naka sudul noonu ndeysaan jeeg ji di eh, waaw eh, am na ci ñoo xam ne waaw mm. am na ci ñoo xam ne xale yu góor yi la am na ci ñoo xam ne ay mag yi jëmm la ñu doon am na ci ñoo xam ne gi nga chauffeur yi ak apprenti yi fa ñu jug seen kaaru njaganjaaye na fa policiers yi dem di dem wax di nga di dem da ngay jékki-jékki nga toll doon loin nga gis kaar buy yëngatu soo demee ci biir waaw li ma lay wax nii. waaw déedéet yëgali rek man kay dama laaj. xam nga soo demee su police yi demee. waaw yëngatu man dama defoon sax dañuy def ay naan benn kii demal sa ah? kaar yi gaare. kaar gaare fa yi gaare. Ah. Ah. jaaykatu ndox yi. xale yi jaay ndox. xale yi naan dañuy jaay yor seen palaat noonu di di jaay ñoom ak yi fa yi jaay. lu ne xew. lu xew carte am wala am port. laa jàngee. Hmm. xam nga mm-hmm. xam gàmm dama fa daan fekk mm-hmm. ma bokk ci xale yi jàpp ci gàmm gi mm-hmm. ba gàmm gi jeex mais su gàmm gi jeexee ba mm. ba kaari dem mm. ba nga dem fa kaari nekkoon mm. lu ne nga fay gis mais fu dëkk bi fu yooyu noonu sëñ bi da cee war a jóg wut ay nit yoo xam ne ay ay comité de vigilance yoo xam ne ñooy wër ñooñu yor ay yat ñu nga ca de kun ci jàpp filmer la génne la ci télé benn mm. yoon doo doo doo ko def te loolu dafa bari ci dëkk nañ la tàpp rek waaw dañuy mbuboo mbuboo mbuboo gàmmu gi mm. di ca def naka su dul noonu mm. ñooñu nag ah, bo borom gàmmu gi mën naa lijjanti boppam mm-hmm. waaye tamit borom dëkk ba tamit mm-hmm. mën naa lijjanti boppam da leen bàyyi noonu rek mais fi mu nii ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ak borom dëkk ba ci boppam régler affaire bi ut ay comme waa koskaas mm-hmm. waa koskaas ñu nga ca di liggéey liggéey bu am solo war nañu wut ay gono yi am doole yoo xam xam ne su guddi jotoo ñooy wër ñooñee mm. place yi ñuy nekk nit ñi xam nañ ñuy gàmm ak ñuy raas dem gi nga responsabilité yi di nga gis borom kër am na ñu yóbbu genre sachet yu ndaw yooyu def alcool waaw salañ salañ gi di ko muucoog ñoom da ngay gis kilifa kilifa këram ba mu rafet mm. terrasse ko ba mu rafet mm. nga doon magum jëm mm. say xarit ñëw indi fa seeni gel ci kër gi nga ngay cautionné loolu kër yu bari ñu ngi may seesaat xam nañ lay xew xam nañ lay xew seen kër yi jouru événement yooyu xam nañ ko bu baax a baax a baax am na ci ñoo kilifa yoo xam ne dañuy ñëw indaale seeni gel ci biir kër gi mm-hmm. ca dëkk ba la ñuy dëkk mm-hmm. indaale seeni gel jabar ji ju xam ne sax indaale wallaay muy jaari jaari di seen ndakaanu ngeen sëñ ba du la gis mm. jumaa ji du la gis fenn yow gàmmu woo da ñëwoon pour noos mm. yooyu ci boppam la ñu war a di dénoncer mm. nit ñi di ko moytu te ragal borom bës bi na ragal borom bës bi ndaxte ah dina ko fajal boppam borom bës bi kon eh, lu jar a sóoraale daa daanaka importance su gàmmu mm-hmm. génnul lii ngeen wax mm-hmm. defaraat jikko mm-hmm. dafa am euh, xam nga Madina boo fa jullee benn rakka sa benn julli dafay doon junni rakka màkk boo fa jullee benn ràkk sa benn julli boobu day doon fukki junni rakk mhm. ci dayoo am na saxaaba boo xamante ne bi mu déggee wax ji rek moom daa jóg ñu ni ko foo jëm mu jël ay bagage am ni day toxu mhm. ñu ni ko lu tax mu daal ni man li ma julli ay rakk ci màkk bari na mhm. ni ma ko julli ma dina bari na mhm. waaye da ngeen déggul wax ji mhm. loolu mooy boo fi defee benn bàkkaar day doon junniy bàkkaar mhm. boo fi defee benn bàkkaar ci màkka yi day doon fukki junniy wallaahi wallaahi ndeysaan ak a dégg mu ni ma bañ sama lu baax lee sama lu bon li raxas ko bërëb bu ni wutee yiw keem na nga fay amee yiw boo fa demee bàkk boo fa defee bàkkaar noonu ngay duyee bàkkaar yi ni poids bi toll foo war a setee nga taqe fa kenn dootu la setal kon baasu li may wax nanu roy yonent bi ci cet d'abord sallallahu alayhi wa sallam mooy ku set ki yàlla ci yërmandeem xaqiqatu muhammad yi dina am ñu bari ñu koy wax euh, te xamuñu ko dëggi dëggi muhammad ku nu ko wan doo ko mën a gis nga daanu jël xam nga ni li yàlla korfati ci boppam moo tax mu daan wax ana min allahi wal muminuuna min nii man ci yàlla laa jóge ñi gëm yàlla yépp ci man la nu jóge waaye sallallahu alayhi wa sallam ca cet ga mm-hmm. reetaanam rek day daaneel nit jël mm-hmm. yaay Aïcha fekk na ko muy ñaw ci lëndëm gu tar mm-hmm. puso ba mu doon ñawee waddu ko sallallahu alayhi wa sallam taxaw muuñ rek néeg ba mel ni bëccëg moo tax mu bi mu foree puso ba tourné ni ko sang bi yaa rafet billahi sama borom kër yaa rafet wa ajmalu min kalam tara xattu aynin bët mësta tege ci ku mel ni ku yow wa akmalu min kalam tali di nisaaw lu jigéen jur yaa ci gën a màgg xulixta mu barraan di ko way ba yàgg ni ko sang bi kay wax ma luy sa secret yow dafa mel ni bi la yàllay sàkk dangay nga yoroon seetu naan ko bindee ma nii ndax dafa mel ni ni mu la neexee noonu rek la la yàlla binde ma bëgg wàccaayu gàmm mhm. bi ci ëpp solo mhm. mooy defar jikko sallallahu alayhi wasallam li muy baax baax foofu laa bëgg ñëw yàlla taggewu ko Abdallah ay sa baay mhm. déedéet néew ko Amina mooy sa yaay waxu ko lenn lu mooy yow daal ca dëgg-dëgg ku màggi jikko nga Seydina Hassan nag nee na <coughs> way juróom Seydina Aliyun nee na ko yonent bi nee na ko li gën a rafet ci gën a rafet mooy jikko ju rafet ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk ñàkk nga lépp rawal xasanu an abil xasani an jaddil xasani inna min ahsanil xasani xuluqul xasan kon li ngay bëgg-bëgg yonent bi roy ko ci jikko moo ko gënal yóbbalam daal mooy ak cell looy def nang ko def ci sellate mu ngi mel ni wàllu lépp lu nit di liggéey mhm. na ko sellal ku yoroon sa ñam ñëw def ko ñam wa salte boo ñëwee ci mbedd mi koo ko jox mu delloo la waaye boo ko defaree ba mu rafet mm. yenn saa emballage bi ngay joxe. Mm-hmm. dafay tax ñu xemmeem li ngay wut mm-hmm. kon nag loolu ci gàmm la gën a war fépp sallallahu weer woo xamante ni yow sa tilim kii tax nga set kooku booy dem yóbbul ko lu set mm-hmm. ka fay dem di fa duyee nag dëgër na fit waaye nanu xam ni nag ku ko ku dul rëcc mm. war naa xool li muy def bu baax a mhm. baax saa ko defee layyil la day yomb aja mhm. déggéen daal mhm. ci gàttal nañu dellu roy yonent bi sallallahu alayhi soo gisee ma wax sànq tudd Njaasaan maa ngi taxawoon ci diggante bi mu woote waate may wax ci kii bi mu woote waatee màkk bay wax ci quarante ans ya bàjjanam bu ñuy wax Safiya dafa ni ko bul woo Abu Lahab mu ni ko ah lu tax mu ne ko sa baay yëpp moo ci gën a soxor te waxtaanu biir néeg la woon mhm. ngay wax ak sa famille mhm. xam nga yonent bi yu njëkk ya mhm. ku ci ne ci saw xeet lañ la daan yónni yonent bi lay mooy kaafatan li nas yàlla yónni ko ci nit yi ak jinne yi sallallahu alayhi wa sallam mais bi mu ko waxee loolu ñu taxaw ci tund safa mu wax ak ñoom ni leen lu ngeen xam ci man ñoo ko tontondoo de ñu ko jub ak jubal dëggu ak dëggal ku yor dara sax yow la koy dénk mun leen su ma leen woon ginnaaw tund wi am na lu fi nekk di ñu si ndax di ngeen ko gëm ñu ni ko loo sa wax dëgg la mun leen yàlla mu yónni ni ki tey bu leen jaamooti lu dul lii ngeen fi doon jàmmu laata ak Uzza ak Manaata ak dara baaxu ci moom sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab ni tappit daal di koy saaga mm-hmm. biir mbooloo mi mm-hmm. mu waxee nag foofu noonu yàlla ni ko sa bàyyi la bul fayu man maa lay fayul mm-hmm. saaga woo xamante ni ba mu ko saaga yàlla li mu tontu Abu Lahab ba léegi ñu ngi koy jàng tabat yadaa abi lahabin waaye Safiya di wax rek Abu Lahab dal ci kawam ba nar wax ko keroog nga xamante ni kii xañ nit daf koy dolli doole te yëgu ko bi mu taxawee ni ko euh, euh, euh, Safiya di défendre yonent bi Abu Lahab nara dal ci kawam nag foofu Abu Talib jóg taxaw. Mhm. ak Hamza gis nga deret dina réagir ni daan bi dinañ ko dinañ ko aar. Hamza deret moo ko dugal ci lislaam xam nga nit dañ dañuy wax limaan balaa liimaana ma toog deret moo ko dugal ci abu abu jahlin dafa fekk yonent bi sa alayhi wasallam muy wax mu wax ko wax ju ñagas fekk Hamza moom rëbb la daan nekk ci àll bi di rëbb am lu wax ak moom benn haatif ni ko Hamza ay waay boo fekkee woon abu jahlin na mu doon ni muy toroxalee sa doom ji mu ni ko kan mu ni ko Muhammad ibn Abdallah te xamul lii wax ak moom mu daal di jóg nag di wër abu jahlin di ko wër di ko wër di ko wër ba fekk ko ci biir mbooloo mu toog mu ni ko yow bi ngay toraxal Muhammad xanaa xamoon ni am na baay bu tudd Hamza xam nga ni da nga ma faa fekkul de bi muy wax ak moom ba wax jikki bi mu ko dóoree nopp bay génne deret mu daal ni ko du loolu da ko jéem a bañ ci diineem ji mu ne ah mu ni ko bis tey sax tuub na bi mu waxee loolu xam kooku derete ko tuub tax a tuub mhm. mu dem ca kër ga toog Hamza nee na am na sax seytaane ñëw di may naan ma Hamza li nga def xam nga ko mhm. waaye yow kii di wax kii rek tax nga dugg ci diine Muhammad ji Hamza nee na moom am sikki sàkk ci laa ñëw ci yonent bi ni ko waar ma ngir sama liimaan toog mhm. waaye premier li ko dugal ci lislaam deret la mhm. kon dafa doon xañ nit far dollil na ko moo tax ku ki ku iñaan noppaluwul mhm. bu loolu amee yëpp yëpp nag li ma ci gën a neex mhm. mooy sallallahu alayhi wa ki ko roy la soxla sallallahu alayhi wa sallam anas ibnu malik mooy xaadimul rasul anas ànd na ak yonente bi fukki at sallallahu alayhi wa sallam mosu koo gëdd mosu koo wax wax ju naqari mosu koo mosul def dara ba mu ni ko nàngam lu ñëw rek daf koy delloo yàlla anas nee na kon man kan moo ma ëpp teraanga te moo ko ñaanal barke boobu anas ku jabootoon la ku amoon alal la ku amoon teraanga la moo tax bi mu demee moo ñu tabale yi ñuy tëgg nii sax anas ibnu malik moom moo ñu wax ni euh, sallallahu alayhi wa sallam bi muy dugg madina nee na tabale yi ñoo ko gunge wallahi wallahi wallahi anas ibnu malik mii yonent bee ko yar xam nga yor ki la yar te gëddu la waxu la benn wax bu ñagas mais foo dem danga nga koy yóbbaale foo dem da ngay yóbbaale loolu ba dara du fees sa bët kuy waajalati gàmmu xoolal ni ko mag ñi doon defee mhm. Njaasaan de boo fa demee tey jii na yonent bi doon dunde sallallahu alayhi wa sallam moom alayhi wa sallam fii ñu toog bu ma neexoon ni leen nañ leen ànd mhm. ñu ni fu ñu jëm ma ni ci xalifa ba mhm. su ma neexee du ma woote téléphone parce que noonu la yonent bi doon def sallallahu alayhi wa sallam bu nu àggee dinañu toog ak moom mu ñaanal ñu loolu mën ngaa jëw tamit di ko laajte naan kan mooy xalifa bi boo ko xamul kon nag fa bi ma rahmatan min allahi linta lahum wala kunta fazan xaliza alqalbi lan faddu min xawlik yàlla daf ni yonent sallallahu alayhi wa sallam lii yërmande guñ la moo ñaale la ak sa nooy ak sa lewet moo tax nit ñi topp la boo leen jaayoon dangiiral ñu ni la fi ñukk ni yàq bu naqari ku mu doon na ngay bàyyi xel ca loola ki yàlla jox cër ak kii wuti cër bokkul yàlla dafa jox kilifa gi cër mhm. na tiit ci boppam mhm. kii jëm ci kilifa gi it bu mu ko diingat ci zahir bu mu ko diingat ci baat personnalité ngoom mhm. su fekkente ni demee nañu noonu li ñuy wut dañu koy am Sénégal jàmm rek moo fi am ndax mag ñi nii la ñu àndee woon lii rek fësal na ko ci fësal mbaax pour wan la ni rafetal googu yéen a ngi koy def ci këru diine yëpp lii ngeen di def nii pour boole këru diine yëpp la Serigne Mansour la nu wane bul fàtte ni borom Ndiassane jël na doomam jox ko Serigne Babacar Sy jël doomam jox ko Touba. Mhm. mu jox ko Cheikh du Moustapha. Mhm. moom la ma mi doon wax sànq. Mhm. moo tax may wax ni ànd bii ñuy ànd. nañ ko ànd ànd booloo na ko mag ñi àndee woon. dama wax kalifa bi bi muy door a toog. pour wane ni ñëpp dañu war a nekk benn ndax loolu la way juróom ba bëggoon mhm. maamam daf ni mhm. nañu àndandoo ñun ñëpp bokk koo dégg mu wax baatu mhm. na bul na mu mel na nga la man qaala laa ilaha illa allah mu ba mu wax muy laa ilaha illa allah ma ni ko ci wàllu mi koo gënul la te xam nga li nga doon yaa yor jikkoy xalifa nañu nañu yëkkati parce que waxtu wi dab nañu muhammadu ya rasulallaahi ku ma gën ma gën la géer bàyyu batul سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرب ومن عجم سيدنا محمد مي ماي واي njol makka moo di ibnu abdoulahi borom junjum ya cey rasulullahi abuhu baay ba doomi abdul mutalib noobal baraw na góor ña kenn dootu ko dab ndax man dama romb ab diiwaan ma déglu leen tuun ñu naan ci ay wolof daan nga seede leen loolu mm-hmm. mustafilan faalan mustafilan faala fa qultu man man yonnen rekk moom loolu muhammadun ibnu abdullahi neel na bey daan sël ahlu màkka laajal màkka yow loolu da leen ni woon maa di yoon nen màkka bañ ni déedéet muhammadun wàcce weer wa màkka tey xool xadita fawha yon neen yéeg na kaw asamaan jàngal ma suratul isra kon nga gis loolu laminu ànd na ak jibril di xotti ciy leer ñu dem ba sidratu jibril des fa cey loolu muhammadun jàll waxtaan ak borom asamaan wàññil nu fay julli muusa seere woon leelu sëriñ muhammad buuna nee mu del si màkkata ñuy Bakar naan sadaqta qad qulta xaqan seede naa loolu Seydina Muhammad imaamul anbiyaayi rasulu daa gore tabe rëy fit di taaw di am caat lewet na daa rafet nekkul ndaama dum njool sallallahu alayhi wa sallam uh, fatabaarakalla macha allah waxoon nañ leen ko ñu ngi waajal gàmmu gi fatabaarakalla macha allah am mbégte fatabaarakalla macha allah uh, cheikh bu di ziar xalif ba mhm. di ziar fatabaarakalla macha allah xalif bu wér di sàkku ñaan bu baax a baax a baax nee naa li duuf ci nag wi yëpp xajandoowul ci cin li ma mi xanaa dama lay jox nga tàggu askan wi fatubaakalla macha allah. Mhm. waajal gàmmu gi daal gis naa nag ni nga mhm. ah, allah oh, damay ruubee rek lii yëpp ci barke weer wi eh, kon yal na yàlla fay mhm. bismillah tàggool xam ba daanaka loo na yokk da nga koy jéem a def kon daal yal nañu yàlla fay bisub euh, euh, ci yoolub euh, gàmmu yal nañu ko yàlla may ñun ñëpp te lu ñu fa jàng ak lu ñu fa ñaan yàlla wasaare ko ci réew mi xam ne suñu mag ñi daal tëdduñu woon noppaliku wuñu woon kenn ku ci nekk ci ñoom bind nga ay ton ci yonent bi wax nga ko lu nekk ci lu baax ak lu rafet kon ñun nañu ca roy te xam ne daal loolu rek mooy li ñu mën a jariñ yaa booy nag xanaa waajalu gàmmu gi moom dama ci nuyu sa xarit rek ajaratu Ndella Wade maa ngi koy nuyu te koy ñaanal gàmmu ak jàmm ak salaam ak sama bàjjen Awa Diop delluwaat nag di ziyaaraat waa Sénégal gépp di leen wax ne kenn gënu leen ba suba ak jàmm ulimata mi ma génnee fii nag ak Abdoulahat mi ma fuddan sama sëriñ waaw sa doom sama sëriñ moom moo ma fuddan <laughs> dégg naa lool ci moom onok of add <laughs> euh, a ñaan nuyu waa Njaasaan ndaxte ñoo bokk ñoo ñoo diglooy tool mm-hmm. euh, di leen ñaanal rek yàlla na yàlla na yàqu dëkk ba yàlla na yokk gis naa ni na yokk bu baax a baax a baax di ziar euh, nabien yi comme ni nga koy waxee rek sama mère ba nekk fële ci France di madame Doumbouya moom di dund bu baax a baax lii ñuy waxtaane di ko ñaanal moog borom këram euh, di tàggoo fi rek euh, ba beneen yoon gendarme yi seetaan nag bari nañ gendarme waaw gendarme nabien yi ñoom chef Thior ak ak Mamadou Gueye Faye di général ak soxnaam ñoom ay nabien ñi leen ñaanal bu baax a baax ñu Adja Boy ne gàmmu Njaasaan dafa am ñaar yu ci neex mooy da ngay gàmmu ji am yiw waaye njaay ma fa la gën a yombee kon na ca ñëpp daw wuti wallaay wallaay macha allah mm. ay ca tàggoon ki nga àddal la tàggoon waaw sëñ Ousseynou joxal joxal euh, waaw ay ca tudd na bay bu bay bu bay tàggool ci lu gàtt rek ndeysaan amiin jërëjëf jërëjëf jërëjëf wallaay wallaay bàyyi bu. Ousseynou Cissé ayca Ousseynou. waaw macha allah ñu ngi kontaan bu baax. rabbal aalamiin cheikh bu. tàggoo dafa tabarakallah di sant yàlla di leen gërëm wax dëgg yàlla di ñaanal xalifa bi sunu xalifa laaj mam bu Mamadou ak mboolem xalif généraux yi mhm. di nuyu borom kër gi su suñu xarit di nuyu suma yaay ndey soxna di leen nuyu fa tabarakallah yéen waa Wareef soxna déggéen tam soxna mami Ndoy Baan wallaay wallaay nuyu directeur yëpp dalee ci Njaga ak ñoom buuba bàyyiwuma kenn Joséphine fa tabarakallah ak maawa suma xarit di wax rek ni yóbbal bi mooy mhm. tazawadu mhm. fa inna xayra zaadi taqwa booy dem ci gàmmu hmm. na nga yóot yóbbal yóbbal bi gën nag mooy ragal yàlla ragal yàlla jërëjëf jërëjëf ñuy santaat kon euh, di julliwaat ci sang-sang yi mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam àndaat rek ak yéen ñi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew ziyaaraat kilifa diine yi nee naa di sàkku ci ñoom ñaan waaye delluwaat di leen ñaanal ñoom kilifa diine yi fu ñu mën a ne yal na yàlla ñodd di seen fan wéral seen cër ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di remercier bu baax a baax madame Babacar Touré soxna Daba Si fu mu nekk nii nee na xol yëpp tooy nañu ah, moom tamit nabiyeen bu mag boobu ñu ngi koy sargal di ko jox wàccuwaayam ah, Kaja Diallo ma ca Elbeuf ak ah, madame Doumbia ñoom ñu nga ca France nekk ca Elbeuf ñoom dara rawu leen ci bés bi ñu ngi kontaan bu baax a baax di nuyu nangaan ndaw suñu grand suñu frère bi nga xam ne mooy consul Sénégal New York jamono jii mu nekk fii mhm. di nabiyeen bu mag fatabaarakalla macha allah mooy doomu ndeyu Kinushka mooy doomu ndeyu Kinushka nangaan ndaw mooy consul New York Adja Oumou Cissé mhm. moom tamit nabiyeen bu mag boobu xadi ndaw ñoom ñëpp nekk ca mbuur ñu ngi leen di bàyyi xel Adja Dieynaba Kébé ak waa Kër Ndabaax nee na Tiwaawan yëpp nga toog di déglu nañ koy defee saa su ne mhm. di nuyu Adja Diallo bu Jóob si sama doom jooju tamit fatubaakàlla macha allah yàlla na yeggaleeg jàmm di wax happy birthday bébé Alimatou Fall mi nga xamante ne yaayam madame Fall Aminata Traoré moo nekk fii di liggéey ak ñun di santaat bu baax a baax di remercier Thiané Diagne jour ji ci dentelle bi waaye tamit nag di remercier Bijou Sagna sama doom ja nekk ca France ca bagage yi diggante perruque yeeg lessier closure yi ndax ñuy jàpp ci combat bi mhm. dañu bëri la macha allah di leen jox rendez-vous suba ci kàttanu yàlla beneen émission wareef yàlla suñu borom bi def dégg ak topp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye waxtaan wi daal maa ngi koy leen suñu yaay boo xam ne nabi yéen bu mag a mag la muy ajaratu ndey soxna mbuub ñu ngi koy nuyu la macha allah di ko jox wàccu waayam yaay booy sargal nañ la fatubakalla macha kon ba subaam jàmm ci kàttanu yàlla beneen émission wareef yal na suñu borom bi def dégg ak topp ci barke laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf